ndeysaan mu nekk xale boo xam te ni kon ni ko Zos waxee rek làmb da koy bàyyi xel muy am jë production euh, combat bi nekk le 9 mars incha allah fee ci arène national ci digganteem ki nga xamante ni moom mooy moom ak Magnick Kaïré tey nag mu nekk open press am ñu gis ko nag mu nekk en forme ànd ak waa parcelle ànd ak ñëpp dañ koy bàyyi Ousin moom mu wax moom mu nuyu euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ak autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ci kanamam dañ koy bàyyi bu nuyu Ardo lay nuyu. waaw sant nañ borom bi julli ci yeneen tëmb tedd bi sant borom Touba bam mu ñu booleeg ba léegi lépp lu bon dañ ko ba yàlla nañ si sax ba keroog ñu ñu yóbbu Touba. tuubi ruubi naa sant nañ la faal dootuñu ko ba kon sant Bamba yaa ñu ko digal sant ci cikar moom nga ñu tere moom nga ñu digal wante fecc waaw yaa ma gën a xam da nga koy tere ñu ngi siyaar ñëpp kuluhum waaw di bëggee waa parcelle ñëpp. tey nag euh, dama am yóbbante bu may yóbbantee. Ah, bu ñu ma yóbbante bu jugee ba itali waaw mu jugee si sama grand Jibi Kayta waaw di leen wax waa téere boomin waa unité 2 waa parcelle Jibi Kayta mi ngi leen di nuyu bu baax sama grand bu baax a baax a baax un peu de bruit ngir yàlla pour Jibi Kayta yëngal gësëm wala ñetti nit Ardo nga jëm premier grand combat sa diggante ak Manick Kayré kenn du ne Ardo nekk ci état de forme mais combat bi nan nga koy waajee sa premier grand combat nan nga koy waajee. waaw comme ni ñuy waajee combat yëpp comme ni ñuy waajee combat yëpp ni ko ñëw ak samay mbokk. di profité occasion bi di sant ñi si jàpp ñëpp ba yeg yegg si fii ndax seetaanuñ ma benn yoon am na ñoo xam ne seen teewaay si man bu ma gisee bu ma leen gisee day rëy si ndax ñoom ñoo tàmbale yëpp ku si mel ni suñu grand jos ñëpp xam nañ ni lamb parcelle bu jeggee fii nii waaw daf si joué moom ak Moussa Dioum xam nga ñoom ñoom ñoo ñu xàllal quoi ñun buñ si lekkee benn fikki dërëm rek war nañ leen ko sante ñun amuñu dara luñ leen di xalab ndax ñoom ñoo xàlli tey ba mooy lool ku fi bëggoon a bëre li may wax rek da ngay dem ba Pikine wala nga dem Fass soog a bëree mais léegi fii ngay ñëw xam nga boo ñëpp a gëm làmb fa ñoom joué nañ si rôle bu am important tey ñii ñeneen ak ñeneen ñu ngi si lekk ba Modou Lo tey mooy roi des arènes nekk parcelle xoolal loolu ñoom kon liñ joob ba mu yegg si fii bu du woon ñoom est-ce que dinañ yegg foofu kon sante ko waa leen defuñu lu dul amee leen njukkal ñu ngi leen njukkal baax buñ delloo nag gis leen ñoom ñu nekk tamit du ñu dooleel di bokk ak ñun suñu seen temps seen alal xam nga muy dox si leneen ak leneen xam nga di ñu ko imposer wax euh, di ñu wax ni maanaam social la ko am njëriñ di ko def si sang yéen a ngi gis lépp xam nga loolu bu jotee ñëpp lay fëgg ne leen waaw da ngeen siy jàpp xam nga loolu c'est un geste à saluer mënuma ñëw fii te du ma ko wax moom mu taxaw fii te du ma ko wax ndax dañ ne ku la defal lu baax nga wax ko quoi waaw te du man kase ñëpp la koy defal quoi waaw di sant Baye Djili di sant monsieur le maire Pape Niang Pape Niang monsieur le maire maa ngi koy sant bu baax Cheikh Omar Mbaye bu yeboo nga bàyyi ma man mënuma laa bañ a sant dama lay sant par force daf may defal loo xam ne ba pare danaan moom du bu ma ko sant Cheikh Abdou Mbaye borom dal jàmm jóge fii ba Louga ànd ak Cheikh Djily xam nga non faaw ma sant xam nga lu tax faaw ma sant waaw noonu la demee quoi faaw ma sant faaw ma sant barki maam Cheikh Ardo dama laa dégg say bi wax nga ne Bécaye dafa am lu mu la amee lan la la Bécaye amee non après après xam nga wax wax wax am na loo xam ne sax jaru ñuy wax dañ koy manqué de respect ndax am na man loo xam ne kenn xamee wu ko ay xas-xas laa ak yooyu noonu kenn xamee wu ma ko waaw mais lim ma ameel incha allah bu lépp weesoo dina ma ko dina ma ko jox quoi loolu moom moom moo ko moom jox loolu moom dama jël maa moom par force dama koy jël combat bi dañoo gis da yokk poids lan moo waral yokk poids bi ci combat bi. non yàlla xam na ne man gisuma loolu man ëppoon naa lii sax yalla xam na ko du ma sama grand ngañ da sagana xaalis bu bëri yëkkati jox ma bo booyee am problème maanaam ñoo xam ne maanaam bu ñu bu ñu daree garmi xam nga xam nga fii jàmbaar amu fi bu fi jàppalee am xam nga ngay tourné di gis ñoo xam ne ay ngañ da dañoo xaj foofu xam nga lu ñu naan pro xajul si xajul si koñ. loolu noonu moo ma dal quoi. waaw ñu ngi koy sant ñëpp di ko santee sama gaay bu ma limee rek damay juum. mais ñëw ci combat ñu gis mbañik combat am yëpp dafay metti combat yi day am xeex day am bëre est-ce que bi nga ciy dugg laaj nga say mbokk. man bu ma demee bay moytu mbër jën kay sax bu ñëwee jour boobu noonu dama koy defaral. dama dama. nekk combat boo xamante ni gars yi dañu dañ koy tëggaat ndax gis nañ Magnick combat bi lim ci daj est-ce que Ardo tey na pour bëre ak Magnick xeex que ñu bari dañ ne booy bi que loolu tamit yaa ngi ciy bàyyi xel. non man bàyyi ma xel loolu ma la waxee dëgg rek man bàyyi ma xel loolu quoi man li ma préparé ak sama samay nit man loolu moo ma ñor quoi ku nekk xam na li ngay dal lii tamit dafa neex quoi ñii samay mbokku darma xam nga may wax ci koo xam ne nekk te gëj nañ koo gis moom. ah defe def naa ay sorties yu bëri daf ko rënk yàlla nañ ñor ak jàmm yàlla may yàlla may ndam si kawam loolu laay ah? bëre dóor lañ wax bëre dóor lañ wax égiri dóor dóoraat dama fay capp di fa soos mën nañ cu mën nañ caa mën nañ calleen di seegee combat bi ñaata waaw di sant sama waa égiri bu baax a baax waaw non sant lal. Euh, lan lañ wax ndekki euh, ndekki suba dañ koy fanaanoo. ndekki suba dañ koy fanaanoo. wante añu suba kenn du ko lekk tey. bilaay walaay. noonee la demee comme que xamaguñ luy xew sa géew ba xam nga ñu ngi ànd ak suñu mbokk di ñaan yàlla may ñu ndaw man daal li ma fas yéene indi xam naa ko te dinaa diriger man de bu ma yàlla mayee wér rek amul benn mbër buy taxaw naan daf may diriger lu leer nañ laa la bañik bañik lay seetaan lan nga koy wax. aw ma dara lu ma koy wax li ma ko waxoon laa koy wax li ma moom dama koy jël si barki maam Cheikh Ibrahima Fall. jox la du dërëm. Mbagnick hmm? du dërëm. arrobé la Baye Fall la am na am na lépp. péréction wóor na yàlla xaw ma nu mu mel. te dañ koy jiw péréction ma nu mu aw ma fit moo tax du ma tiit. aw ma fit moo tax du ma tiit xaw ma fu fit di nekk si rek ak Mbagnick Kaïré ban moo gën a danger ndax bi moo nekk combat boo xam te ne moom ñëpp xam nañ ko day fayit te Ardo ñi mu daan bëre ak bii est-ce que am na différence. Mbagnick day fayit. yow yaa ma ko wax gën a diis. yaa ma ko wax mais est-ce que am na différence adversaire yi nga daan jël ak bii. non pour man amul man pour man man laa la wax amul différence quoi. dina nga ne amul différence. dina nga ne amul différence. pour man amul différence. ñi nga daan bëree kan moo gën a. ñaari ñëpp ñaari loxo lañ yor benn bopp benn tànk. ñoom ñëpp xale na nañuy dem. te ku ma si laa. koo doon bëree ndax dañ ne aar doon ne aar dën. am daal. képp ko doon bëree rek daa am loo xam te ni da nga ko doon jox. est ce que Mbagnick Kaïré ndax am na loo ma waxoon est ce que pare nga pour texam soo bëree ñu ba pare wala da nga génne tex bi avant. et eh, clap it your head DJ son bu dee dëgg la. DJ eh, son DJ son. DJ son barabar bu baax dañuy rab di def lépp. dina barabar. mu ne nañ fépp. DJ yaa ngi pare. DJ. DJ. parce que alxuraan mun nañ lépp. chaque jour. jango Babou eh stop stop Babou Babou Bissar ko Babou Bissar ko so we Babou Bissar ko taxaw taxawaayu Ziguem bi taxaw taxawaayu policier Ziguem bi encaissé permis gars yi mel ni clando fuñ ma seen rek teggi avance su ardo la ñuy laaj bu caméra yi tàkkee le promoteur seet see ñoom ñu changé av jëlal jëlal avance bi ndiga avance bi jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal avance bi sama avancement la bu ko lekk fango day break. wàllu mobilisation foo ci toll. Hmm? wàllu wàllu mobilisation fan nga ci toll. mobilisation dañ koy waa parcelle xam nga parcelle. parcelle parcelle ëmb na lépp. mën nañ ne gan lañ si làmb mais kenn kenn gënuñoo mën bés. waaw. non ci ni nga lu neex. waaw biir ñoo damay wëy. waaw. xam nga. waaw wéy si. Ah. lii lépp day xew. fii la piyee gën la wundu gën la cling bi ñuy woote fii la buujoo. waaw ñoo ci wàllu mobilisation. di wax gars yëpp ñu jàpp si polo gu billet yeeg yooyu noonu ñoo seen. waaw ñu ngi woo ñëpp. waaye tàmbalee la ñu ngi woo ñëpp. leen di gërëm. lala waa Faye waa Joal pour violence waa Casamance suñu mbokk yi ñu ngi leen di woo ñu pour violence violence moom buñ ko buñ ko séntu si ñun quoi ñun gën la undu gën la giling la ñuy dund ñun dañoo xam noos du ñu yàq làmb yàlla xam na loolu waaw ñëw yi nga sant bi mobilisation fii la buujoo ñun dañoo mën bés barki maam Cheikh Ibrahima Fall waaw di woo gaa yëpp le 9 xam nga di woo gaa yëpp 1 ba 26 waa golf kenn du dem ñu des xam nga waa Inza 3 bu ma limee rek jum mais ba 1 ba 26 xam nga fajaa fépp daal ñu ngi woo ñëpp ñu si daan jàpp ñu jàpp si waaw di sant Baye Fall xam gaa ñu may ñu tuuti xam nga di woo di woo suñu grand suñu mag suñu papa suñu lépp la Diop di ko woo di ko woowaat di woo Cheikh Omar Mbaye maa ngi lay woowaat baax ñëw nga mais faa nga ñëwaat ay waali xam nga waali maire Aïda maire Aïda ñu ngi koy woo si baax a baax gis nañ ñu muy jàppee si keneen ak keneen zosang lay bégge bu wér waaw di di woo nga ku si mel ni sama grand Cheikh Omar Jibi Kayta yow bu ma ngay ñëw bu da ngay ñëw da bëri mu jeex dàgg xam nga ngañ da sagana waaw gis nañ bu baax li nga def waaw ñu lay ñaanal baax a baax di wax gars yi dem appel gars yi jógee Kazu Rajab ñaanal nañ ma di wax gars dem appel ñëpp ñëpp nañ ma ñaanal xam nga di bëggee di bëggee tamit sama mbokk xam nga waa PC maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax xam nga waa Camp Pénal waa Cap Manuel xam nga ñëpp xam nga baa Fall yi fa nekk yàlla na leen suñu borom teggeel nattu ñëpp waaw ñu nekk si hôpital yeeg ñu nekk si jeel xam nga. yàlla yàlla def si réew mi yëpp jàmm quoi barki maam Cheikh Ibrahima Fall. kontaan nañ di wax kontaan nañ bu baax a baax. waaw di baalu ak dëkkandoo yi xam nga boobu ba léegi lamb dafa metti dëkk ba dafa metti waaw père ñu ngi lay siyaar bu wér père dafa waaw borom de. waaw cent waaw treize. waaw asiko yeeg ñëpp booy yëpp di wax nag affaire yi jeexagul xam nga lamb ja la mercredi. Ah, ñu dem jël ñu moom. waaw incha allah ñëw indi ko fii feete ko. ak Cheikh Jili mu baax mi xam nga. ak Baye du Mbaye borom dal jàmm fii léppay dal jàmm violence bu ñu si kenn woo. Ah, ndax borom dal jàmm lañ àndal. waaw ku ñëw ñu dalal la dalal la jàmm waxtaan ak yow. bëre la yeegi daanu la maam ngu na faal cant gi la cinq la xam nga bàyyi aafiya sëñ baaramu bàyyi aafiya ku si mel ni maam lamp dama fa dem mu ne ma yàlla nañu yàlla wàllu si kattanam bi waaw loolu rek ëmb na na amul leneen a maytu waaw tey nag nga hmm. wax li may wax rek. gis nga boo fii nii parcelle du ñu yàqu noos. non non non dañoo xam ne ñuy nooxee. bilaay walaay taalaay xam nga nit dafa war di xool si ku maanaam si ku